virgule 6 pour cent yi nga xamante ne amoon nañ ko ci 2023 yéene réew mi network bi di xam ne ni tamit dina am fi ñuy dem wàññeeku bi ñu mën a nemmeeku ci inflation bi tamit wàllu koom tamit ci bis bi le jour yéene kaay bi di wax ci recette fiscale li nga xamante ne kon banque mondiale moo ngay sàkku ñu daal di koy gën a yaatal kuréel gi gis ni kon coppite war na réewub Sénégal ci li nga xamante ne moom mooy fiscalité bi gën a ñoŋal impôt bi jëlee ko kon ci askan wi loolu a yokk set yi ci biir réew mi jàngatu banque mondiale bokk na ci tamit ëllëg bi muy perspective yi ñu jàpp ni kon mën na gën a ñoŋ ci réew mi bu ñu sukkandikoo rek ci taxawaay bi nga xamante ne kilifa yees yi am nañ ko kilifa yees yi yàgg mbëbët li ñu duppee souveraineté monétaire maanaam Afrique wala sunu réew sax am xaalisu boppam Dakar Times mi ci dikkaat tey di xam le ni kon loole ngir ñu yegg ca du yomb benn yoon te nekkul rek ay cadeau koy def suñu naataangooy gis ni kon xalaat bi ci war sax ñi koy wax yépp ak ay activistes yi tamit daanaka du teg ci table bi lu xel mën a nangu ndax jóge ci franc CFA moom mën naa nekk sax luy jural réew yi ay gàllankoor yéenekaay bi lim ci ci firnde réew yi ci mel ni Gambie Mauritanie ak yeneen yi nga xamante ne bëri nañu lool ay jafe-jafe moo ne de am nañu seen kopparu bopp Sénégal mi am pétrole boppam ni ki talaata ak léegi mu ngi ci jamono yi nga xamante ne taarix du ko fàtte Bassirou Diomaye fay moo ni xamle ci biir le soleil national yéene kaayu an bi di xamle ni kon jiitu réew mi ci boppam ni ki démb ci ndajeb conseil des ministres jot na échantion bi tukkee ci baril de pétrole bu njëkk bi nga xamante ne ca Sangomar lañ ko exploité gannaaw loolu sàkku na ci gouvernement bi ñu daal di def li ci war ba exploitation bi jaar yoon te lépp leer ngir sénégalais mën ko jëriñoo waaye tamit mi réew am léegi pétrole bi muy exploité Sud Quotidien nag li mu ci gis mooy ab taxawaay dëgg la laaj ngir yëf yi mën a jaar yoon ba askan wi jëriñoo ko moo tax yéenekaay bi di ko méngale ak épreuve di dikkaat ci li nga xamante ne moom la ci loi bi wax ci wàllub séddale la ciy tukkee waaye tamit contrat pétrolier ak gazier yi nga xamante ne ñi nekk ci nguur gi dañu sakkoon ñu daal di koy càmbaraat Lex Africa lu muy sakku mooy ñu fexe ba ñu daal di koy démocratiser maanaam secteur bi ci boppam mbégte naam am na ci ndorteelub exploitation bi waaye njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye gis ni ndorteel képp la ci doxalin bi nga xamante ne war naa gudd lool ñu war ko def nag ci pétrole bi yéene kaay ma jàmbal jaan bi dikkat ci doxalin bi maanaam gestion bi ni mu war a demee koppar gu ci tukkee waaye tamit révision cos pétrogaz bi nga xamante ne kon ñu ngi ci àddoo Bassirou Diomaye fay mi àddu ci pétrole bi mel ni ku ci bég lool waaye ci beneen fànn di xool mel ni ku bëggul benn njuumte am ci njuumte nag bu ci amee mën na jur musiba ndax enquête quotidienne dikk na ci ak dossier bu yaatu wax ci exploitation pétrole ak gaz bi nga xamante ne dëgg la naam bëri na ay ngëneel waaye ay ndëgg sërëx tamit ñàkku ci suñu naataango yi di xam ne ni kon Sénégal ci boppam gannaaw li ñu door dina gën a jekkal seen toogin ci li nga xamante ne moom mooy géopolitique mondiale bi yéenekaay bi am ñu mu ci dénk kàddu ku ci mel ni Sophie Kaboudé nga xamante ne économiste la ni Sénégal dina am naka Nigéria ak Niger ab kàddu léegi ci li nga xamante ne moom mooy waxtaani ci dendub Afrique Eliman moom lu muy xam ne mooy ñu xaar tamit ba gaz bi dikk ngir ñu gën a am dëgg gëdd gi nga xamante ne moom la ñuy xoolee ci biti réew waaye laata loolu nag bu yóbboo xel yi dal ndax enquête mu ngi ñuy xamal ba tey ni lu jëm ci retard production bi nag am na lees waxul ci li nga xamante ne moo toll ci juróom téeméer ak juróom-ñeent ak ñetti milliards ci francs CFA ci l'observateur xamante ne moo jëm ci jaar-jaar bi ba ñu yegsi ci exploitation bi muy négociation yi ngir kon lu jëm ci pétrole bi yéenekaay bi sekk ci waxtaan ak Serigne Mboup mi nga xamante ne moom ci wàllu boppam moo door li nga xamante ne mooy waxtaan yu njëkk ya ba contrat yi nga xamante ne moom lañ ci njëkk signé moom directeur ba woon bu Petrosen Petrosen ci boppam leb na lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukki million ci dollars ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy waawut Woodside Libération mooy xam ne bi ci boppam naka lañ ko tëralee ak régime bi nga xamante ne moo fi jógee ñi doon sàkku ambassadeur bu Israël jóge fii ci ndakaaru yamuñu rek ci ay kàddu ay kuréel yi bootu ci société civile ak ay activistes nee ñu daañu amal ab manifestation ñaar fukki fan ak ñett ci wérub soin bu ñu nekk démb lañ ko xamle ci am ndajeek taskatu xibaar yi kenn ki bokk ci ñoom Guy Marius Sagna di sàkku nag ci imaam yi ñu bañ a jël xar yi nga xamante ne Israël ci boppam daf koy maye fii ci réew mi du ko fàtte rawatina seen entraîneur bi nga xamante ne moo fa jógee di Jürgen Klopp Rewmi Sport moo dikk tey ci kàddu technicien allemand bi nga xamante ne nee na bokk na ci li nga xamante ne du ko fàtte mukk ba mu nekkee ci club boobee muy Sadio Mané ak li mu fa def ni ay jaloore moom Sadio Mané ci biir yéenekaay bi di stade ab laaj la ñu samp lan mooy ëllëgëm ci Arabie Saoudite ndax saison bi moom daanaka li ñu ko doon xaare gisuñu ko rax ci dolli am na ay xibaar yi nga xamante ne ña ngay laam-laamee dina fa jóge